sayyidina sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimih wa man daa bi daawatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante sunu boroom julli ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bisub ajuma bi di ñaar fukki fan ak juróom benn ci kori ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett mbokk yi diine lislaam bi mu wàccee dafa am yoo xam ne da koy sàmm dafa am yoo xam ne ñoo séq nit ñooy tax nekkam ci kaw suuf mën a yemb yooyu nag diine da koy sàmm da koy sàmmal diineem di ko sàmmal bakkanam di ko sàmmal xelam di ko sàmmal askanam di ko sàmmal alalam di ko sàmmal deram yooyu mooy yi nga xam ne lislaam dafa ñëw di ko sàmm moo tax yooyu lépp lu koy xajamal diine da koy tere jamono yi ñu toll nag wolof dafa wax ne lu ay di njàmbat ku ne xam na ne bi may lim boole naa ci bakkan moo tax lislaam dafa araamal kuraay bakkan euh, ak lu mën a xew nit wu taray bakkan nit bakkan bi nga xam ne moo ko mooy mooy bakkanu boppam sax sëñu koo faat bu nekkee ci xat-xat lu mu metti metti su nekkee ci ak tawat lu mu tar-tar su nekkee ci ay xat-xat lu mu diis diis nit ki sëñ taray boppam ndax moomul boppam sunu borom mi la moom moo ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kaana bikum rahima yàlla nee na bu leen xaru bu leen rey seen bopp te yàlla mi leen koy tere yërmaane ju mu leen yërëm moo tax mu di ko tere gannaaw nit ki nag moomul boppam ba tax sëñta rey boppam kon ana nu muy reyee keneen ku dul moom sunu borom nee na bu leen rey bakkan bu deful dara buñ koy rey daal nañ ko teg ci dëgg wala taqtulu nafsa allati xarama allahu illa bi xaq lislaam sax dafa santaane nit bu reyee nañu ko teg ci yoon rey ko ndax mooy tax nit ñi mën a am jàmm ci kaw suuf mu ne walakum fi lqisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laallakum tuflixuun jël ngànnaay sax di ko joxoñ sa mbokkum jullit donte dangay kaf diina da koy tere ndax jël ngànnaay di ko joxoñ nit seytaane mën na ca laxasu ba nga def naka sudul noona moo tax ngir bëggata seytaane tax na yonent bi nee na laa yushir ahadukum ila axihi bi silah fa innahu laa yadri laalla sheytaana yanzau fi yadi fa yaqawu fi xufratin min xufari naar nee na bu kenn jël ngànnaay di ko joxoñ mbokkam ndax xamul saytaane fu muy jaar ba laxasu ca mu rey bakkan te su reyee bakkan day tàbbi safara yàlla nu ci yàlla musal waxaat na it ne ku jël ngànnaay di ko joxoñ mbokkam donte ñoo bokk ndey ak baay sax muy kaf ak moom na xam ne malaayika yi ña ngi koy móolu ña ngi koy rëbb man ashaara ila axihi bi xadida fa inna almala fa inna almalaikata talanuhu xata yanza walaw kaana axaahu li abihi wa ummi gannaaw jël ngànnaay nag di ko joxoñ koo bokkal ndey ak baay ngir kaf moom la ñuy tere ndax bëgg bëgg bëggata seytaane kon ki fab ngànnaay rey ab jullit kon ana moom ana ana nu muy def te réew mi ñu dëkk ñaare koo seen muy xëy ak a gont euh, day doon jënu mbaar jënu mbaar mooy koo xam ne ñi ko yaakaar dafa bari ñaare koo seen muy xëy di gont mbooloo ñoo daanu ci kawam mu yor leen nga xam ne bu fa jógee mbooloo ñooy tumuranke boroom kër bi nga xam ne day saytu ay tuut tànk boo ko rayee tout tànk yi dañuy sànku boroom kër bi saytu soxna ay soxna soo ko reyee soxna ya seen doole bariwul seen pexe bariwul mën nañoo sànku boroom kër bi saytu ay màggat seen màggat ñi nga xam ne seen doole jeex na seen wàll wéy na mu leen di saytu soo ko reyee tumuranke ñëw na boroom kër bi nga xam ne dafay jàppale ay bokkam di dimbale ay dëkkandoom ñu sës ci moom soo ko rayee tumuranke ñëw na kon nag ñi nga xam ne dañuy jël ngànnaay di rey ay bakkan nañu delloo ci seen xel te rey kenn nit alquran nee na moo ko rey ñëpp ñooyam rey ñëpp rey waa àdduna ñëpp na mu diisee fa yàlla ni la rey kenn diisee fa yàlla min ajli zalika katabna ala bani israil annahu man qatala nafsan bi gayri nafsin aw fasaadin fil ard fa ka annama qatala naasa jamia kon nag rey kenn nit diis na diis koo xam ne ku ko xam waroo ko def rey bakkan nag amul mag amul ndaw ki rey mag na mu diise fa yàlla ki rey ndawit noonu la diise fa yàlla moo tax alquran wax ne wa isal mawudatu suilat bi ay dambin qutilat te nit su reyee ab jullit la ko cay fekk dafa bari te dafa diis ndax euh, ki rey ab jullit jahannama lay tàbbi loolu yàlla wax te tàngooru jahannama ku ko méngaleeg tàngooru sawaraw àdduna bokkuñu dara te sawaraw àdduna kenn mënu koo dékku te jahannama lay tàbbi bu fa doon tàbbi rek dugg génn sax yàlla na ci yàlla musal waaye moom dafay sax te du ca yem yàlla da koy mere da koy jéppi du ca yem yàlla da koy rëbb du ca yem sunu borom dakoy koy euh, xarool mbugal mu màgg wa man yaqtul muminan mutaammidan fa jazaauhu jahannamu xaalidan fiha wa gadiba allahu alayhi wa laanah wa adda lahu adaban am na ko moso ñëw ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow mi yàlla yónni bàkkaar ana bu ci gën a bu ci gën a rëy ci gën a mag mu ne ko an tajala lillahi niddan wa huwa xalaq wa huwa xalaqak mooy nga wutal yàlla ndend te yàlla mi nga xam ne moo la sàkk nga di ko wutal moroom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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول sudur dafa ñëw ci euh, nga ji mbindeef ne ko bàkkaar yi ban moo ci gën a rëy mu ne ko nga wutale yàlla moroom te moo la sàkk mu ne ko ak ban mu ne ko mooy nga rey sa doom ngir bañ a euh, bokk ak moom sa alal mu ne ko ak ban mu ne ko ngay def naka sudul noona ak soxna sa dëkkandoo yàlla wàcc ci alquran wax ne walladina laa yad'uuna ma allahi ilahan axara wala yaqtuluuna wala yaqtuluuna nafsa allati xarama allahu illa bilxaq wala yaznuun waxaat na moom yonent bi ne ñaari jullit bu ñu songoo kenn ku ne yor ngànnaay ka rey ak kañu rey dañuy tàbbi safara ñu ne ko ah haada al qaatil fa ma baalu al maqtuul ki rey moom tàbbi safara jaaxalunu waaye ki ñu rey lu ko tax a tàbbi safara mu ne moom it dafa bëggoon a rey mbokkam kenn ku nekk ba ngay song sa moroom danga nga ko bëgg rey moo tax yéeneem lañ koy fay waxaat na ne su ma fi bàyyi koo ëllëg bu leen dellu démb dellu démb mooy lan mooy di rayante laa baax tarji'u ba'di kuffaaran yadribu ba'dukum riqaaba ba'd waxaat na ne àdduna ju tukki moo gën a woyof woyof fa yàlla nga rey ab jullit àdduna xëy xëy rek tukki moo gën a woyof fa yàlla nga rey ab jullit la zawalu dunia ahwanu ala allahi min qatli muminin bi geyri xaq te rey ab jullit ni ñu ko teree ak ni mu diise rey koo xam ne du jullit te xeexul lislaam jàppug njaamuram euh, ne ci boppam kooka tam kenn du ko rey ndax yonent bi nee na ku rey koo xam ne du jullit waaye jàmm rekk la séq ak lislaam tooñul lislaam tooñul kenn nee na euh, euh, war nga yàlla war nga yonent bi te doo fóon xeetuk àjjana nee na fa nga nekk ak fa àjjana nekk soo doxoon juróom-ñaar fukki at du tax nga fóon xetuk àjjana nit nag mën naa juum ba rey nit dana juum rey yore oto mbëkk nit mu faatu nit mën naa juum ba rey waaye ki juum ba rey sax wormaal bakkanu doomu aadama ak foor gu mu foor moo tax du ñu ko bàyyi noona dañ koy laaj ndàmpaay te itam dana kafaara day boole kafaara ak joxe ndàmpaay waaye du ñu ko bàyyi noona loolu lépp yàlla dafa bëgg a sàmm bakkani jaam ñi bëgg tam jaam ñi sàmm euh, seen euh, bakkani mbokk léegi nag àgg nañ ci jamono joo xam ne rey nit am na ñoo xam ne mook naan ci ndox la ñu yemale te loola waxtu wii dañ caa toll yonent bi waxoon na ne waat naa ci yàlla mi nga xam ne bu ko sooboon lii may wax du yegg jamono dana ñëw joo xam ne nit dana rey te soo ko laajee lu tax nga rey du ko xam nit dañ koy rey te soo ko laajee lu tax ñu rey la du ko xam moo tax sëriñ bu mag bi ca téeréem ba ñu wax na fiis mu cay soññee ci sàmm woor may doom aadama nee na ab jullit bu ko kenn bu ko kenn tuutal waaw tuutal ko sewal ko xeeb ko gëdd ko ŋàññ ko walla sax tiital ko mu ne bu ko kenn def wa min ihanatin aw intihaari li muslimin aw sabbihi bil aadi wa mislu ji taxwiifuhu taxwiifa fi gayri xaqi sharci la taxiifa kii kon waxul rey di ko sewal di ko tuutal di ko jànni di ko ŋàññi di ko tiitloo nee na yii sax bu ko def sa mbokkum jullit kon nag kii waxul mbirum rey te jamono jii danga gis ku rey nit soo laajee ñu ne dañ doon werante ba yàgg mu soppi ku xuloo ba yàgg ñu xeex mu rey ko nga ne luñ doon werante ñu ne weccet lañ doon werante fukk ak juróom lañ doon werante fanweer lañ doon werante wala eh, ay mbër ñoo doon bëri kee farfee kee farfee kee daan kee kee daan kee xolam tàng ñu xuloo mu jël paaka rey ko danga nga gis tam kuy rey ngir sacrifice yoole la ko wolof di wax day am lu muy wut ñu ne ko faw da rey nit wala andi bakkanum nit andi noppum nit andi loxom nit wala ñu ñu ñu fexe ba am dereti nit fan yi xam ngeen ne am na tuut tànk boo xam ne dañ doon dagg loxoom ñu bett gaañu ñu daw am na ñu ne loxo ba lañ soxla woon am na ñu ne dañoo wutoon pot di dëkkandu deret ji ndax moom la ñu soxla ñiy saytu armeel yi sax ci dëkki taax yi dañ lay wax ne la léeg nit ñëw dig leen alal ju bari ngir ni dama soxla ab baaraam walla ab nopp walla kawar wala càngaay loolu ñu yor barab yi euh, dañ koy nettali suñu dëkk bu sell bi sax danga nga gis barabu kilifa boo xam ne dañ fay def mbàjj nuur nuur ko ca barab ba ab sàmba booy bàyyi ba guddi mu dem yéeg fa dajji bunt ba laal mbàjj yi di ko yóbbu ne da koy jariñoo da nga gis kon kuy rey ngir sàcc sàcc rek fab alali jàmbur bàkkaar mënu ko gën a rëy yow nag nga boole rey nit muy àq ju diis fab alalam muy beneen àq boo demee ci dëkk yu mag yi danga nga gis ñuy rey euh, te doo xam lu tax ñuy rey daawaati jéeg am na soxna soo xam ne chauffeuram bi koy dawalal moo ko rey ca sow ca ginnaaw am na tëggu wurus boo xam ne dañ ko ameeloon bor mu dem di fayu ji bor ba kooka rey ko def ko ci saako def ko ci oto euh, daal koy bàyyi ca oto ba bëkki démb bis ni tey dégg ngeen soxna si nga xam ne fa muy liggéeyee lañ ko fekk euh, jam ko fanweeri paaka ak juróom-ñaar daaw xawma daaw jéeg xam ngeen waa ja nga xam ne dañoo weranteeg chauffeuru taxi mu dóor ko bal mu daanu fi suuf sunu dëkk bu sell bi bii nag nga xam ne ba ko sëñ bi di sanc defar fi jiw yoo xam ne bu noppee ca ñoom dañuy tasaaru ci réew mi defar réew mi te loolu sëñ Mouhamed Lamine Diop daggana yàlla ko yàlla gën a dolli ay leer moo ko nettali nee na sëriñ bi bi mu fi nekkee li tax mu dem Mbàkke Bari dafa gis ne ñiy jàng alquran ak ñiy jàng xam-xam euh, ak ñi nga xam ne dañuy laxasaayu dañoo jaxasoo te bëggul sax ñoo ñu jaxasoo waxuma la ñi nga xam ne ñoom jànguñu alquran jànguñu xam-xam laxasaayu ñu moom jaxasoog ñoom xelam xalaatu ko mu gis jaxasoo gi nag. Euh, doy waar tax mu ne day génn dëkk bi ndax li taxoon mu sañ ci dëkk bi ñu ngi koy gàllankoor moo tax mu dem Mbàkke Bari yóbbaale Sëriñ Daam muy jàngale alquran yóbbaale maam Thierno muy jàngale xam-xam kon gis ngeen moom li taxoon mu sañ ci dëkk bi mooy fu mu defaree nit rek léegi rek dangay ngay dégg ci dëkk bi waajur wu rey doomam amoon na fi daaw jéeg waajur wu rey doomam koo xam ne soxnaam da doon génn dem ci. kër ga mu dendal di fa seetaani télé boroom këram rey ko am na fii ci dëkk bi ku rey xaritam am na fii ci dëkk bi waxuma la nag ñi bàyyi ba guddi ñuy yor ay gànnaay ak oto di dem ci jaba di dajj ay bitik wala ñuy dem ci ay pharmacie di ko dajji wala ñuy dem ci këri gor yi di ko toj di jël seen alal te soo yëngoo ñu jël sa bakkan tax na ba bu jant sowee gor yi amatuñu fitu génn bu fajaree màggat ñiy dem ci jàkk ja amatu amatuñu fitu dem ci jàkka ja soxna ñiy dem xew seen gànjar yi ñu daan takk amatuñu fitu takk takk gànjar ci dëkk boo xam ne ba ko sëriñ bi sanc defar fi ay jullit ay nit yàlla yoo xam ne bu noppee ci ñoom dañuy tasaaroo ci biir réew mi di defar nit ñi kon lii law na ba ci dëkk bi te foo dem ci àdduna boo demoon màkk it fa nga koy fekk kon daal day màndarga màndarga mujju jamono waaye na nañu delloo siwaat suñuy xel te xam ne sëñ Abdou Lahad waxoon na ne àdduna yàggul ndax am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem lu amub tàmbali akob yem yàggul waaye li muy yàgga di yàgg di doon doomu aadamaa gën a yàgg di day judd fekk fi àdduna faatu bàyyi fi àdduna doomu aadama itam ak dundam li muy yàgg di yàgg di fi muy mane ak tële fi muy tële moo gën a yàgg di mbokk yi diggante nodd ak li xaam dara xaju fi safaan xaju fi nit ki su juddoo dañuy nodd ci loxob ndeyjooram noppub ndeyjooram li xaam ci noppum càmmooñam bu faatoo dañ koy jullee kon diggante nodd ak li xaam ak julli dara xaju fi lu dul lu baax kon yàlla na nu yàlla xiir ci lu baax yàlla na yàlla dëpp njaboot gi njaboot gi nag lenn rek moo koy dëpp mooy yar leen yarub diine yarub diine ak akub taalibi rek moo leen di taxa dëpp waaye bu ñu leen bàyyee ñu nangi faawoo danañu topp seytaane te ku topp seytaane doo mucc yàlla na nu yàlla sàmmal sunu kilifa gu mag gi fee mu nekk ca sow eh, eh, tontu na ñaari guddi ndakaaru ya bisam bii tontu na ko kon yàlla na ko yàlla gën a sàmm te lépp lu mu sumb ci liggéeyu liggéeyu lislaam ci toolu Sëriñ Tuubaa bi yàlla na ko ci yàlla defal ndam te nu ànd ko ak moom wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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

الحمد لله الذي أشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشطت جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب fa qawmun usribat qulubuhum xubba dunya fa suxilu an tazawudi lil axirati billadaati wal axyaar وعكفوا على طلبها وجمعها آناء النهار وقوم ملئت قلوبهم والأسرار وفتحت منهم البصائر والأبصار فسمعوا قوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فتوجهت همهم إلى إدامة الاستغفار وتسبيحه سبحانه وحمده بالعشي والإبكار ولازموا بيوت الله في أرضه لقوله في حديثه القدسي إن بيوتي في أرضي المساجد وأن زواري فيها عمارها وطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق, فحق على المزور أن يكرم زائره الحمد لله لا إله إلا هو لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه جل الله مولانا اختار نبينا محمدا واصطفاه ووفاه منه ظفر قصاصه ما وفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من تلاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأسياء بالله أما بعد فيا أيها الناس إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فهي أم الطاعات وسيد القربات laa tuqbalu qurbatun illaa bacda qabuulihaa walaa yundar lilcabdi fi fariidatin wala naafilatin illaa bacda tamaamihaa bifusuulihaa fa ahdim bihaa min cibaadatin yunaaji alcabdu fiihaa mawlaa وناهيك بها من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها أعانكم الله في أزمانها المعينة وأوقاتها wa wafuuha xaqaha min al-i'tidaali wat-tumaaniina wa saxihu caqdaha bil-ixlaas wal-xushuuci was-sakiina waffaqana Allaahu wa iyyaakum li-tariiqati li-tariiqati al-muhlaa wa alhamanaa jamiican لتدبر ما علينا من القرآن يتلى واغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين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 الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله هواء نحوي سنقرئك فلا تنسي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 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصفت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم شعرهم الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله